mbokk yi marché Ocass tàkkati na marché Ocass l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest nationalité yu bëri daje fii Touba la deuxième ville du Sénégal sur le plan démographique et économique marché bi ëpp dayoo ci sous-région bi bokk yi nii la ko safara si def samdi ci guddi toll ni marché Ocass mbokk marché bi nga xam ne moo ëpp doole ci réewu Sénégal nga xam ne képp koo xam ne li fi nekk ci ay nit ñoo xam ne dañuy importé li fi nekk ci ay dépôt nekk ko ci ay magasin ak dëkk bu toll Touba ñu deuxième ville du moom ay yoon yu mel tali lakk yu ni am ñëpp ñëpp ñëpp parce que lépp mooy dañoo war a encom dañoo ni ñu encombré yoon yi moo war a dañ mbedd dañ ko war a désencombré aménagé ko liggéey baax na topp mais liggéey tamit alal mu yàqu amul njëriñ nañu xool dëkk bi nuñ ko gën a organiser ñu ngi lance appel kilifa dëkk bi ñu ngi lancé appel préfecture ñu ngi lancé appel maire yi ñu ngi lancé ak ñi xam ne ñoom la yaakaar àdduna ak àllaaxira ñu dimbalu ci marché Ocass bi parce que at bu jot mu lakk loolu lu méttee méttee méttee métti ba nii may waxee yow nii kenn mën lu lakk mi ngi tàkk gauche mi ngi tàkk droite ay paan moo fa mën a loolu vraiment mbir la moo xam ne métti na bett na tey it war nañ cee jéemut ay saafara bu ñu xoolul neex nit ñi nañ xool nekk yoon ñu di ko def nañ xool nekk yoon ñu di ko def nañ aménagé yoon yi niñ ko desan comme ëpp na marché boo xam ne oto sa fi dugg foo fi dox sa wengul mën na wàcce marché bi bëccëg mais nañ ciy waxtaan moo ne mbokk yi ñaari at ci gannaaw taxawoon nañ fii di fi dund lu mel nii ministre bi ñëw gouverneur ñëw porte parole ñëw maire ñëw ak kilifa diine yu bari yu fasantikoo ñëw massawu mbokk yi ne leen nag incha allah danañ ci jël ay matukaay mbokk yi. xoolee ba xam ni mu demee ba xam li ñu war a def rek luñ ci war a wax ci bokk taalibe yëpp ci ndigalul sëriñ bi ak luñ ci war a jëf ngir ànd koog yéen. ñëpp dañ ko def. dañ ko def te ànd koog taalib yëpp. ak bopp julli yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu teew ci kanamu xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké ñu di ko ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mu ne leen yéen lay déglu lu ngeen xalaat ne moo ciy pexe rek. ma ànd ci yéen. waaw déedéet waxaguñu ci lu xamaguñu ko ndax dañoo jékki-jékki gis mu tàgg ni ñii jàpp nañ ne xëy na euh, mën naa nekk euh, courant mën naa nekk ñu doon taal ñu doon jëfandikoo sawara commissaire nga fa ak lu ma téeméeri policier ña nga fa di toppatoo di gëstu daal ba xam euh, lan la ko lan la war a doon waaw waaw maire dina woote mhm. ñun ñëpp dañ koy woote bi Touba lay doon. bu defee man ma ñëw ak service yi ak sapeur pompier ñun ñëpp. ñu jéem a seet. nu ñuy def ba organiser waat marché bi. ndax bii bii lakk gi amee. deux heures du matin la. deux heures vingt rek ñaar fukki minutes dañ ci teg rek sapeur ñëw kon boog sapeur yi tardé wuñu waaye amuñu fu ñu jaare yoon wi yëpp. ñii puus puus a ngi fi. te waroo faa ne fii table ngi fi te waroo faa ne fii cantine ngi fi te waroo faa ne ba tax nañ ñoom amuñu fu ñu jaare ba fay lakk gi ba heure bi ñuy wax am na ay tàkk-tàkk fa lañ jógee te bu fekkoon loolu amul yoon wi libre na fa ñu war a ne ku nekk fa nga war a toog toog nga fa xëñ na du bu métti du méttee ni mu méttee nii. kon ñu ko xeete boo xam ne nii lay gënee. Mhm. loolu daan ci ko seete boo xam ne nii lay gënee. loolu daan ci ànd ak yéen.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 lañ waxoon lañ waxaat lañ ñaanoon lañ ñaanaat waaye lu soppeeku mbokk yi marché bi tàkkati na. lakk gi metti na waaye yàggul. Mm. te mënoon na gën a metti. Mm. kon ñu ngi masawu ñi nga xamante ni dañu yàqule waaye sant yàlla bi nga xamante ni tamit ci saa si état bi organiser secours yi ci ndigalu président de la république ak ci coordination premier ministre bu mu gën a gaawee am nii tey tamit jaar na laaj jaar na ñu waxtaan jar na ñu xool yan yoon la ñu mën a jaar ba yéen ñi nga xamante ni yéenay borom place yi mm. alhamdulilah bi ngeen xamee ni am na nécessité mm. pour ñu defaraat mm. parce que defar boo gis dina am loo xamante ni dina am euh, ay inconvénients yu ci nekk mais loolu yëpp dañ koy waxtaanee ba mën si tënk te li marché yi dañu seetlu dafay am problème toujours pour yegg ci yenn bërëb yi bu ci lakk amee loolu nag am na benn programme boo xamante ni bu yaatu président la république di ko doxal dénk ko ministre du commerce mu ciy def liggéey bu rafet. boo xamante ni dañuy ñëw euh, xool bu fekkente ni marché bi dëppoo na <coughs> ak lépp loo xamante ni dañu ittewoo ay matuwaay. ba su fekkente ni jéeya am na yàlla bu mu am. ci saa si service yi nga xamante ni dañu war a fay lakk yi muy sapeur pompier du ñu am benn difficulté ngir yegg fi nga xamante ni fa lañ soxla yegg. ñëwaat nañ lañ waxoon lañ waxaat lañ ñaanoon. lañ ñaanaat waaye lu soppeeku mbokk yi te bu njëkk ba nee nañ lu toll ci un milliard quatre cent soixante quinze millions lakk na fii quatre cent deux ci ñu nangoo bindu un milliard quatre cent quinze millions mbokk yi nee nañ nag bii moo gën a garaaw te ñi ëpp ci ñi fi loru ay soxna lañu mbokk yi. waaw ndax lii sàggante la ndax incompétence la ndax ignorance la mbokk yi ñëpp xamoon nañ ne marché Ocass bombe à retardement la li ñu umpale woon kay mooy kañ lay tàkkaat li ñu umpale woon mooy ban waxtu lay tàkkaat li ñu umpale woon mooy ñaata nit a ciy loru mbokk yi lu xew moo ne gouverneur bi fi teewoon ci tàkk-tàkk bu njëkk ba tey mooy conseil spécial bu maire de la commune de Touba ana téeméeri conseil yi ñu tànnoon ngir ñu taxaw dëkk bi ana 17 adjoint ak maire yi ñu tànnoon ci ndigalal sëriñ bi bu fekkee ne lu toll ci fukki 17 bouches d'incendie ñu ngi fii ci dëkk bi ñaari ci baax xanaa loolu dañ ko joxul yitte nañu joxe woon yitte bi ñuy samp conseil municipal bi ndax jàpp ngeen ne buñ ko joxe woon yitte bokki taalibe yii di daan seen doole ci seen ñaqu bopp lii dina fi xew xewati fi mbokk yi lu xew damay laaj rek c'est de l'incompétence ou de l'ignorance wala boog def dul seen yitte te fii jafe-jafe bi ñëpp xam nañ ko lu ñuy wax newatu fi de lu ñuy jëf moo fi nekk marché Ocass takk ndax encombrement branchement anarchique ñi di ko seetaan ba sapeur pompier bu ñëwee mën na def waxtu di wut fu mu jaar ba ay jàmbaar ñoo jiitu ci liggéey bi jël ay paan ak i siwo ànd ak waa Touba ca kanam ak seeni oto ba sapeur ñëw fekk leen ci ndax wër na ba tey amul fu mu jaar ndax li tax lii gàllankoor bi ñëpp xam nañ ko. li jaaxal nit ñi mooy lu tax duñu ci jël ay saafara wala dañuy xaar la xewoon gaar ba xew fi alal ji dem ay bakkan faatu fi damay laaj rek mbokk yi ku xam nga wax ñu waaye mbokk yi bët bu rusul toj bi yoon jàpp naa ne duñu ñu seetaanati mukk marché bi du tàkk ndax tàkk na fi tàkkaat fi tàkkati fi ñi amee responsabilité te ñu dénk leen dëkk bi jàpp naa ne dootuñu seetaanati marché bi muy tàkk ay milliards di fi tàkk ci loo xam ne ay bokki taalibe yu am pas-pas bëgg sëriñ Tuubaa bëgg liggéey ak jaamu yàlla ak dëkk bi di fi daan seen doole ñuy seetaan seen alal di naax saay noonu mbokk yi plus jamais ça